jërëjëf euh, jërë ngeen jëf euh, Passepartout Aliou Ba euh, Maysa Mbaye jërë ngeen jëf internet ak auditeur yi déglu RFM 94.0, lara la radio de toute l'actualité actualité yéen a ngi seen journal des faits divers xalaas ànd ceeg Mamadou ndoy Bane ak Mamadou Mohamed Ndiaye. naka nga def. sant rek ñi ngi sant bu baax di ziar Ndiaye di la ziar. di ziar Passepartout ak Boy bax waaw ak Boy sa <laughs> di ziar ñi ci réew mi di déglu. ak ñi ca bitim réew di leen ñaanal jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci xel yi xol yi ku ko bëggul yàlla na la yàlla forcé jàmm ji ba jàmm ji foo tourné rek mu nooy nepp ak jàmm nga koy dégg mbaa nga koy gis waaw am na solo min bi rabbi amiin waay ñu ngi lay siyaar Ndiaye maa ngi delloo siyaar bu baax Ababacar ba yaa ngi ci jàmm maa ngi sant bu baax alhamdulilah ñu ngi sant waa senegal ñoom ñëpp di leen gërëm mhm. di rafetlu ni ñu àndee ak ñun ci ci xalaas waaw wóor na moom. nga bëgg ñu xool leen. wala ñu yow xoolal baan ba pare. ayca baan. Euh, dafa am dafa am sunu benn maire bu bu gaañu boo xam ni euh, moom feebaram bi moom su déglu su dégloo xalaat sax day tane su ko nag dégluwaat. ndeysaan lu wóor la sunu benn meer bu tudd Anne Marie Badji ca Ziguinchor. ndeysaan ndeysaan mooy yaayu Monique Gomis ca Ziguinchor. ndeysaan ndeysaan dafa wàccu liggéey bi ci guddi sunu yaay jooju nga xam ne heure bu xëyee danaan capté leen ma xalaas. ndeysaan su ko dégloo tàddi journée boobu yëpp day tane. Mhm. dafa wàccu liggéey yàlla na ko yàlla xaaree. amiin yaa nga ni. moom bëgg xam man euh, xalaas gi fu mu toll. lan moo fi actualité parce que man dama absenté. waaw damay bañ a ñëw di jéem a indi benn condition nan ni la war a demee. non non noo ko noo ko yëgee rek damay déglu rek lu ngeen ma jël. waaw noo ko yëgee rek. lu ngeen ma waaw lu ngeen ma jox rek fan la yëf yi toll parce que mënoo absenté ba noppi ñëw euh, damay xool fu yëf yi toll fi mu toll nii. waaw démb ñu ngi woon ci dañoo nekkoon ci benn dëkk bu nekk tudd Djilor. Mhm. am benn waay benn femme boo xam ne dafa porté woon am ex jëkkëram plainte ni ko danga ngaa violer doom maanaam deuxième doomam bu jigéen ba ñu jàpp waa ji tëj ci kaso bi ne ca enquête mandat de dépp ko ma nga ca kaso ba def na fa at léegi ki ñu tëj ca kaso ba magam bu euh, frère dem defi test nii nañ def test ADN xool ba xam baay bi moom viol bi moo ko at wala doom ji moo ko jur liñ koy ji ndax moom la mais ba mu demee ca cabinet ba déposé foofu ñu def test ADN yi trois mois ngi nii jotul résultat muy attaqué cabinet ba waaye dafa am yeneen lu ca rax yaayu xale bu jigéen bi nga xam ne moo porte woon plainte ex jëkkëram jamono jii mi ngi ci kaso bi. ah bon laaj ma lu ko yóbbu. ci kaso bi hmm. xale bu jigéen bi nga xam ne moom lañu ñu moom moo jiin papam viol ak ëmb magam bu jigéen dañ koo ëmbal ci ginnaaw gi maanaam bi pap bi ñu tëjee papa ji ba ah, uh-huh. magam bu jigéen pap kenn tëj taawam. dañ koo ëmbal yaay ji nga xam ne moo porté woon plainte si jëkkëram ànd ak doom ji ci ay liwaa ji wax doon ko yàq ñu jàpp ko tëj ko ci kaso bi non xale bi dafa mujj dee xale bi dafa dee dañ koo doon yàq mu dee ndaw saang ci kaso bi jamono ji donc waajaa ngi ci kaso bi ka ko woon porté woon plainte jiñ ko viol mook doom mm, mi ngi ci kaso bi am nañ seen taaw bu jigéen ba doon yàq biir ba ci liwaa ji wax faatu na yàq biir ba waaw lii nag frère ki nekk ci kaso bi. doon dem di wuti ay test ADN. waaw ba tey mënu cee jot. moo ñu indil xibaar bi. wax na démb li ci des a ngi noonu. acca bokkul ak sama dossier frère bi du sama dossier frère bee ko fa yóbbu de parce que man j'attends les résultats du bu test ADN bi c' est pas du problème ak sama frère bi du loolu bu su dossier sama frère bi mukk du loolu. waaw lu gën a garaaw lu gën a compliqué loolu la. ma xam nga da nga maa posé benn question ne ma ndaw si nan la tudd ak numéro téléphone am. ndaw si lan moo ko yóbbu prison.

Je tax prison Wa doomu bu bu prison actuellement ma prison papa il n'est pas là je défends ses intérêts Je suis en donc je défends ses intérêts Défends ses intérêts au niveau de sa famille Tout ay Qui këram décédé petite sœuram Tout le tuumal est décédé actuellement Tout le petite ne papa m'a violé. violé ci un dossier la dossier la bo xamné ci wax parce que la dossier ça fait tout juste 20 jours ma nga prison. domou domou domou koku sama la donc domou koku su man famille bi dossier kenn nañu diiw fi ba tax un tax dossier bu nekkul dossier la. benn famille la won sama rek tak am fa jabar xam nga rek situation ñom ñaar jappal bal kët kët am ay kata kata ba ñu tas kata kata ba ñu dem fi tribunal ba ba ñu divorcé ku nekk di dox sa dox waaw boo ba mu yeewu suba teel tuumal ne ko yaa ëmbal sa doom ba ñu jàpp ni sama frère bi. doomu sama frère sama doom la donc sama doomu frère bu dee ñun famille bi famille bi war na nañoo yëg mais du kenn ci ñun koo xam ne yëgal nañu ne kii dee na lu la yow suba teel ñu ne dañu koy suuli maa opposé wu ne duñ ko suuli foog ma xam lu tax ñu suuli ko yaa ngi bëgg xam lépp nag. ñu mel ni xaj ak muus jàppante histoire ba xaj ak muus. bu amee lu fa am bir am fa ba bir bi tok ba mu nekk ci presque 9e mois ñuy soog porter plainte di jéem a coow yow yow loolu jaaxalu la yow. kenn mënu ko neub mu ne yow yegg ci yow kenn du yegg euh mais su yegg ci yow bu kenn euh 3 mois dina wara mëna feñ surtout ci xalé soit da ngay fièvre wala foog mu feñ mais je pense que 9 euh, mois yi sori na dé pour mëna porter nit ki plainte ne ko ya def li war laa dem ci laboratoire ba bu ma demee laboratoire ba le le docteur la m'entendra su ma la ko waxee rek gëm ma waaw fay trois cent cinquante mille wax ju neex sax mënu ma ko faa am bu ma bu ma demee waaw demee il me reçoit comme un propre dem moom laa ko bëgg a laaj tey moom pour qui il se prend bi ma fa demee di casse casse ñu ne ma le docteur quand je l'ai reçu déjà moom ni mu ma recevoir laa xam ne kii daf may fontoo moi moi je viens peut-être que euh, pantalon chemise la soloon costume ma wala ma solu ma grand boubou bi ma annoncé bi ma ñëwee bi ma bi ci salle de prélèvement la me recevoir su koo xam ne yaay yaay directeur laboratoire bi mu am un litige ci salle de prélèvement bi la ma la ma kii ma génne kayit yi woon ko mu liir ba pare tu sais qu'est-ce qu'il me dit bon est-ce que sa numéro de téléphone bàyyi nga ko ak gars yi ci buntu ba dinaa la woo ngoon mais man mi ko ñëw seet en tant que directeur bi ñëw wax ko mu jox ko kenn mu liir je pense que su fekkoon ne doon na ma wooyi moom ci boppam mooy jël sama numéro de téléphone mais du ma ne ndax bàyyi nga fële sa numéro téléphone déjà avant ma fay génn rek sais ne ma mais dama koy poussé dama koy poussé ci ay erreurs, ba poussé parce que je naa que nous nga police gendarmerie parce que si ñu wax dinañ je j'ai raison je mënu ma fay trois nit ngi yow résultat résultats même bu a ay machines yuy panne même bu nekkoon ay machines une panne je ne ba trois mois ngi machine panne ce fait que Paris pour faire ay analyse a dem trois mois je ne dis pas trois mois mais maxu dougal ci Google bi nga laaj ko test paternité résultat yi nu muy démé il te dira que c'est vingt quatre heures quarante heures au pire des cas huit jours quand même attends une sérieux aussi quoi il l'a lool affaire à suivre parce que ndaw si mi ngi ci magafa nga fa ma nañ ko li liñ koy tuumaal mooy yàq biir mooy jigéen doo bu jigéenam. boo mooy ci prison bi. waaw femme bi waaw gaa gaañu na euh, taaw ku jigéen ka. Mm-hmm. mais deuxième doom ji ci boppam moom mu ànd ak yaayam jiiñ papa ji ex euh, papa ji ex jëkkër ji. très bien loolu loolu leer na. loolu leer ñu jàll ci leneen. jëlan hmm. ah ci leneen rek. ci leneen waa lii nii dañ koy akoy parce que affaire à suivre la. Mm-hmm. waaw mm-hmm. affaire à suivre leneen lan ngeen bëgg ñu jàll. beneen xalaas rek damay bañ ñu nekk ci démb ak tey. yàgg ci nii te jeex na. voilà. massage prise la li Ndiaye. <laughs> démb ba ñuy tàggoo fii lan laa la wax. nit ñaa ngi jël xale yu jigéen yi di leen dugal ci appartement yi di leen jaay comme ni ñuy jaayee ay masque comme ni ñuy jaayee masque mm-hmm. ngeen ma loolu foo ko teg. waaw xale bu jigéen bii dafa jóge seen dëkk di wut liggéey. Mm-hmm. massage plus. di wut liggéey mbindaan mu ñëw fii ci école normale am na fu ñu joxee jànq yi mu dem fa.

déedéet xamulu tax convocation tamit non du loolu dañoo lii yu mel nii suñ ko defee émission waaw autorités yi ñuy déglu dañoo war a wax ndoy baan mii li muy wax dëgg la fan la nekk lii ngay wax nii fan la nekk lan moo fa xew dëgg la ana preuve yi dëgg la fii dafa xibaar yi dafa war a wér te wóor mais munu waruñu di def xalaas nii rek dem affaire ñu dem lii day yàq dëkk bi njaay waaw d'accord naa loolu mm-hmm. lépp mm-hmm. d'accord naa mais xam nga lan laa àndut ak yow mooy su ma paree fii nañ ma convoqué nañ ko woo xanaa nañ ma woo convoqué mooy woo ma ni ma lii ngay wax ak ñoom ñu def li leen war yow nekkal ci li la war ah, baax na buñ la waree woo dinañ la woo buñ la war woo ma woo <laughs> ko waaw ba tey loolu sa <laughs> devoir la woo ko voilà <laughs> taxaw fii naan ma na ma brigade de merci wak na ma division spéciale cybersécurité wak déedéet dama ne non non ay lu tax ma fekk xam nga xam nga ni ma ko waxee non dafa am dafa am ko waxee ni ma ko waxee mooy lépp bëgg dëkk bi aw yoon aw yoon su ma woowul dinaa leen yóbbul li nga xam ne moom laa yore. kay waay Ndiaye. citoyen noonu lay def. Ndiaye. ndaw soo ko dégloo. Ah. di nga ne ma demal léegi nag bala nga ciy sori. waaw am na yum wax yoo xamante ne ji waxin wi xaw na ñagas. xaw na xaw na xaw na diis ñu ngi ciy jégalu. mënee mënee su ko mënee su ko dindi ndax après doo xam li muy wax. dafa diis ci yéen man de Ndiaye daara diisul ci man déggal li ñu déglu ko. ayca. mooy 14 juin lundi boobu 14 juin duma ko fàtte ci laa jóge suñu kër. dem école normale laay wutee liggéey chaque fois foofu laay wutee liggéey ma dem mu dem mu nekk foofu noonu mu am ku woote mu ne moom jànk la bëgg après ñoom ñu paas ma ko ma waxtaan ak moom ñu ne mënuma waa sama kër defar appartement moo fa nekk ak bàcc ay ay kii bàcc ay charvette moom moo fa nekk loolu mooy liggéey bi te sax ñaar ngeen di nekk yéenay bokk liggéey bi après ñu waxaale si prix ba juboo après si ngoon bi ma ne ko waaw kon su ngoonee man dinaa ñëw mun ma waaw boo ñëwee ba ci Banque Africa bi après nga woo ma noonu laa def ma quitté suñu kër ay quatre heures laa quitté suñu kër dem ay 17 heures et quelque ma yegg noonu fois ma woo ko ne ko egsi naa ci banque bi mu ñëw jël si ma. bi ma demee aussi si kër ga daf ma ne ñëwal demal ci kaw teraas nga tax nga toog fa bi si kanam parce que sama kër daa am ay gan te nit ci dañoo bëri wax. ma ne ko waa d'accord après ma yéeg kaw terrasse fa nekk ba ay 19 heures ci laa ko waat ma ko ee eh léegi timis jot na te man timis dama fekk si kaw après si la ma ne waa kon léegi mun ngaa wàcc ma ñëw dugg si bi ma dugg si juste ma bi ci fam dafa bizarre bi ma dugg si maa ngi ko fekk mosul robe bu gàtt bopp bi dakaa wat ko kenn xamul lu muy nuroo nuroo sax jigéen après ma dugg si mu ne ma waa dugg si ma dugg toog ci saal bi ma tëj buntoom mu ne ma waaw fii de mooy kër bi mu ne ma ndax def nga planique mu ne ko waa lu si yoonu planique ak liggéey nag mu ne ma non ndax fii sama kër moom sama doom macha allah fi te day am ñoo xamante ne dañuy bëgg a def. waaw ma ne ko man ak yow waxante wuñu lool ma man loolu du ma yëkkati ma ne ko loolu bu ma daan fay un million par mois ko yaralu ma ko parce doomu jullit laa man xaw ma loolu mu ne sama kër de loolu moo fi nekk. suma kër loolu moo fu nekk après nag jànk bi ma fekk ma dem di wax ak moom xam nga moom man ko waaye yow di moom kii kon lii mooy liggéeyu kër gi mu ne ma ah lii mooy liggéey bi man ko yow yaa ko accepté mu ne man de maa ko accepté waaw daf ma woo ma ñëw ba si kër gi ñu waxaale mu wax ma lan mooy liggéey liggéeyu kër gi ñu waxaale ma juboo say kàddu waaye man ko ah man di waxuma woon lii li su ma ko waxoon man xalaatuma ko sax dugg man ko lii du sama liggéey xam naa ne sa xool ne si waaye suy boo nga naxtaan ak moom ba génn si sinon boo fa nekkee di ko jaay xaddar ak affaire dina la dugal ci ay problème nga nekk fii nag lu ko mën a gérer te moom moo la ëpp moo la ëpp kii fu muy dugg ki génn dafa capable soo yóbboon nag nga def ak très attention ci moom bu ko wan nee liggéey bi neexu a defal ndànk ba kiroo ngay arrêté dem mënu ko wax baax na après ba ma liggéeyee deux jours trois jours ma ñëw juste pour ne ko man de dama dama bëgg dem suñu ma ñëw ne ko damay bëgg dem suñu kër jëli sama daa lu ma fa war a gérer sama quelques problème lu ma war a gérer ma dem kër nga ñëwaat rek bëggoon su ma bàyyee rek ma dem ba ñëwaat mu ne ma sama kër loolu amu fi fas bi te tamit ma dem toog ma wax kooku noonu mu ne ma kii de capable la def laa la wax amoon na fi benn jànk jànk bi nekk fii bu ñam di metti di jooy di kaa jàpp guddi googu duur ko ba mu bëgg a dee woon na génn kër gi man maa si jàpp kooku fanaan ba set mu doog a dem. ma ne ko ah ay dóorante moom duñ fa yegg man ak moom mu ne dafa capable parce que moom seen waxtaan yëpp day naan da kaa waroon jëm paaka da a def lii affaire yu bon daal lay waxtaane moom. ëmb bi li ñu seen nal man xalaat dee ko moom di sax ma ko gënal fuuf sax dee ma ko gënal fuuf xalaatuma ko téye man kay lu ma ko dindiloo kese moom laa bëgg donte xam naa li si nekk de danger yi ci nekk ak bakkaar yi si nekk yëpp mais aussi j'ai pas le choix loolu kese laa xam ne moom laa mën a def parce que lii nii gi ma mu dem ka kaw fenn. fenn fenn fenn fenn du sama entourage kenn ku ma bëgg mu nekk au courant lu ko dindi kese moom laa bëgg bëgguma si leneen. xalaas. Njaay xale bi pareegul de. pare dafa mel ne pareegul kay déglul. mën na koo def beneen jigéen ku mel ni man koo xamante innocent la koo xamante ne xamul loolu noonu nga amaat ci lii parce mu ngi naan am na keneen ku fi xamante ne tamit moo ko daa amoon daa ko waxee dafa lii si ko def ma bàyyi ko imagine toi nit ndax lan ndax loo loo xamante ne mënoo koo comprendre bu fekkoon ne sa décision bopp la yaa ko choisir def ko man loolu duma ci daw dara kon dinaa ko assumer jusqu'au bout mais instant yi loo xamante ne yow mënoo choisir kii mooy seen papa loolu tamit téye ko loolu tamit kenn mënu ko kenn mënu koo téye bi ma demee noonu commencé naa liggéey bi kay dama doon def massage dama doon joxe sama bopp aussi andilee fa ëmb bi di te dama doon protéger wu aussi mais produit bi moo doon toj après des fois ngay defar nii rapport affaire bi day mujjee yàgg ba affaire bi toj wala boog affaire bi summeeku sax affaire bi des ci yow des ci sa kaw bi may dem foofu noonu yóbbaale wu ma ndaw parce man am naa doom ba pare man am naa doom ba pare waaye instant yi nekkatuma ak jëkkër mais am naa doom ba pare mais terewul taxut ma ñëw pour yàq sama bopp di besaar de sama bopp déedéet ndax su ma ñëwoon besaar de sama bopp di jaay sama bopp fu nekk kon xanaa damay def planique comme ñëpp mais defuma planique parce que man nekkuma ñëw ma pour jaay sama bopp wala pour joxe sama bopp affaire yooyu noonu damaa ñëw pour juste pour liggéey daan sama doole ñaq sama yëre ñu sama doom ak samay waajur parce que ak lu mu ndaw ndaw aussi bu weer deewee ci ñoom laay bokk ak sama salaire waaw fekk na nag lépp lu leen di jox day doon lu lew booku noonu moo tax ma jëlee fa ëmb bi dama doon joxe sama bopp bu baax sax dama ko doon joxee journée mun naa doon tëdd ak ay góor loo xamante ne ay quatre personnes wala ay cinq personnes ci même jour bi mënoon naa ko di def moom Mia la tudd Mia da lay woote wu feeb xaw ma nag namba bi tudd ne Mia daal la tudd Nord Foire la dëkk yore salon de massage Mia la tudd numéro mu ngi ko man waaw moom day jaay boo day joxe boppam parce que moom loolu mooy liggéeyam xam naa loolu la xam a xam loolu mooy liggéeyam des fois bu amee yenn client yi moom moo koy gérer boppam mooy defar boppam massage bi mooy defar boppam rapport bi duñu ko jox ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy jànkee day joxe boppam kay day joxe boppam bu baax xam naa loolu mooy liggéeyam loolu la xam moom daal xam naa ne 30 ans yi dañoo mën a ëpp ay 30 ans de plus lay am may xale bu jigéen la nii rek xale bu li may jànku yu mag yi rek si ñaan muy yàlla kenn kenn kenn si ñoom xam ko si damaa toog fii ma nan laay def moo taxoon ma woo grand boobu noonu nga xamante ne moom dañoo xamante ni wax dafa neex yàlla dafa maa jëfee comme rek ma jëfee laa woo di ko ko expliquer démb si la may naan lii day day kii day yomb trop man ko man instant yi man gàdde doom bugguma ko. bëgguma ko parce que du sama arrangement te bëgguma aussi sama benn benn benn mbokk sama entourage kenn xam ko ne xam si xam ne man dama doon liggéey genre boobu noonu rus naa ko sax wax ndax loolu du sama cër benn yoon cër benn yoon yore doom en plus su doom naawle la vraiment jànku boobu arrêté na mais kooku maa ko njëkk a arrêté moom bi ñuy waajal tabaski moom ci lay arrêté mais ba pare bu mu arrêté nee na ñoom ñaar dañoo xuloo ay guddi la fa jug ay une heure du matin la quitté këram pour ñibbi këram moom jël taxi ak këram bu muy xulu ak moom di ma woo di ma naan damay arrêté ma ne ko man heure bii sañ ngaa génn kër gi naan dangay dem di waxaar ba suba wóorut nga génnee dajeeg benn mu ne taxi laa jël ma ne ko jël taxi nga dem moo gën wóor parce que moom mu ne ma ne fekk moom ci kër gi sax moo wóorut kii dafa capable ay guddi la kooku quitté foofu dem arrêté na moom tamit instant yi kay ñeneen la fa yor ñeneen boo fa demee ko fa fekkee ay yeneen jànk góor yi fa daan ñëw ay normal ay góor yoo xamante ne ñoo yore seen i ay jabar ñëw naan dañoo def si massage def si seen ay rapport après dem seen yoon. xaalis bi nii la ne parce que maag moom dañoo waxaale ba soixante dix mille mois bi moom la ñu waxaale woon soixante dix mille ba ma ñëwee nag ñu wax noonu ba noppi mën na affaire de rapport affaire yooyu mu ne ma waa koo defar rapport après sax nan laay def après des fois nga def trois personnes wala quatre personnes mu ñëw jox la benn cinq mille de man damay noppi bàyyi ko si biir xaalis boobu sax prof nit laa yem pënd bu wuréewul de. Hmm? suba dinañ ci continuer. yaay hmm? Hmm? ndaw si kenn àndul ci li mu def. mais jànq yi di wut liggéey ndakaaru dañoo néew doole te dañoo yomba a détourné. léegi nga ne affaire bi jeexagul. non jeexagul. suba dañ ciy ñëwaat. dinañ ci ñëwaat ak yeneen révélation waaw te ñoo te ñoo bàyyi ba suba ñu ñu ñu kii ci. ñu waxtaanee ko li ma ci bëgg xam ne nii. Uh-huh. yu mel nii. Uh-huh. dafa bari ci dëkk bi. Uh-huh. moo tax ma ne woon démb. immeuble bu ne nañ fa teg benn policier wala benn gendarme yu mel nii ñoo bari ci dëkk bi torop torop torop torop te képp koo xam ne am nga doom bu jigéen. suba il faut ma ñëw bul négliger lii. alors président suba il faut